jërëjëf mbokk internet yi buur a ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel del soit ak yéen ci beneen jotaay xam-xam ki fii dalal xam ngeen ko wax dëgg yàlla di sëñ maam Cheikh Kamal góor yàlla dëgg yàlla di borom xam-xam dama koy wax nekk bokk nga ci góor ñi may tiitaroo bokk waaw ndax ci bërëbu Cheikh mu Moussa ba la ko ñëkk xamee woon jàng alquran yaru lool nag wax dëgg yàlla tam personnalité lool nag tey nag ñu fas yéene sekk sekk waxtaan situation dëkk bi ñun ñëpp gisandoon nañ ko kaso yi féex na Macky libéré na 508. ay détenus waaye coolu coolu des ci diggante bu Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye fay démb conseil constitutionnel dakkal na wala ba kase la nga xamante ne que jëloon na comme décret bu war a pousse élection yi ba le vingt cinq decembre conseil constitutionnel nee ko pousse boobu mënut nekk te di ngeen organiser ay élection ci ni mu gën a gaawee te moom it ànd na ci nag sëriñ bi ñu nuyu la bàyyi la ngay nuyu ak ñi lay seetaan sur bi Pro Média ak Mbour. waaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di nuyu mboolem ñi bàyyi xel fu ñu mën a ci biir réew mi ak bitim réew. di ñaan suñ borom suñ kàddu fekk ñëpp ci jàmm di la wax buur réew mi moom daanaka lii ñu def dañ koy yéex a def bañ ko waree def dafa yàgg ndax gor yi ne ci pétition yi te defuñ dara wax dëgg lii jaaduwut ñu fay ne benn fan ba di fa ne ay weer lii ñu def nag day warteef ci ñoom di leen ñaanal rek euh, nekk gañ nekkoon foofu yal na doon seen nattub àdduna ba faw yal na deen yal na doon itam seen coonab àdduna ak àllaaxira ba faw di wax ni mm, Sonko ak Diomaye ñoom ñoom ñoo ci des. Mm-hmm. ñoom itam nañ leen gaaw génne itam ndax foofu itam du seen place. Mm-hmm. di wax ni rek euh, réew mi moom daanaka kenn ku ci ne xam nga li nga xam ni moo war a am te mooy ay élection mm-hmm. waaye dialogue jaloog daanaka mënee cee dëkk li ci ëpp solo daal. mooy euh, li ñu war a def ñu def ko nit ñi bàyyi lii jàll nekk ci leneen ndax ñi ngi ñi ngi yàq temps bu rëy rëy boo xam ne xamuñu ko ndax élection war na am wërta am date bii lañ ko jàpp ak date bee lañ ko jàpp te li fekk amul jàmm du am te nit ñi am na ci ñooñ kenn ku nekk la nga war a def kenn ku nekk na nga ko war a defee am na ci ñooñ sax ñi ngi war a taxawal seeni entreprise di xaar jàmm am ngir ñu taxawal ko mm. kon nag nañ ko gaaw amal ñi bokk bokk ñu dul bokk ñu xam ne loolu la yàlla dogal mbir yi jeex. est ki que woon na ñàkk bañ a yegg si fii. waaw fii moom mënoon na fee ñàkk bañ a yegg si waaye doomu aadama rek euh, doomu aadama moom léeg-léeg lu ko am xelam jox euh, ak bëggam da ko ciy jiital xëy na mooy tax mu agsi fii waaye li ma koy wax rek mbir mu man di doon na ciy jiital xelam bañ bañ cee jiital ak bëggam ndax li alquran naan wala ak aksara man fil ard yudilluuka li ëpp ci nit ñi rek boo leen toppee mën nañ laa sànk waaw bul topp bul topp nit ñi rek ndax boo leen toppee mën nañ laa sànk ndax aksara naasi laa yaalamuun li li li gën a bëri ci doomu adama yi rek xamuñu euh, doomu aadama suñu borom daf koo bind muy koo xam ni euh, léeg-léeg mën nay mën na lay xalaatal loo xam ni yow ci sa bopp boo jëfandikoo sa sa sam sam sam sam sam sam xel da nga xam ne lii gënul waaye boo jëfandikoo sag bëgg nag saa bu lay lor moom euh, loraange googu yaa koy wéetoo moom ma la doon digal du ko fekke te du ko du du ko teewe kon nit ki war nay bàyyi xel loolu li ma yàgg wax rek Macky Sall euh, ak keneen ku dul Macky Sall itam bu jëlee réew mi rek def ko comme njabootuk boppam gim jural boppam jàmm rek kay am ñu wax naan Sonko gis nañ ko dana am na nu muy demee du génnaa la ci kaso bi ak bakkan ñu naan Macky Sall nañ ko coup d'état te nag di ay ñaankati yàlla nag. waaw ñàkk xam rek ak euh, bëri wax bari wax daanaka mënuma koo jàppe lu dul bari wax ak ñàkk xam ñaari yi kese la ndax wax ju bari dana la wax ba wax loolu lu amul njëriñ ak lu soyoon nekkul ñàkk xam-xam itam dana tax mbir mu ne. nga di nga di ca wax te xamoo la ngay wax moo tax alquran ne wala fu maa laysa laka bi ilmun nit ki loo xamul rek taxaw ci bu ci sori Mm-hmm. sëñ bi nit ki mën naa doon ñaankatu yàlla te amul xam-xam wala jàngul alxuraan bokk waaw kay buur laaj nga lu am solo nit mën na doon ñaankatu yàlla te fekk amul xam-xam mën na ne mm-hmm. ndax ba tey day dugg ci biir mooy suñ borom rek ndax euh, suñ borom mm, bari na lu muy xamal nit loo xam ni du daa caaginu day dem toog rek di ko jàng mm-hmm. dëgg la nag bànqaas yi nga xam ni ci la yàlla di gën a dimbalee mooy nga jàng waaye nit mën na bañ a dem jàngi ba pare mën a ñaan ndax ñaan nag dafa doon loo xam ni ku ne mën na ko mm-hmm. waaw ku ne mën na ko jafe-jafe bi kay mooy nit ki ndax sell na sellu mën a ñaan suñu borom suñu borom wuyu ko ci na mu gën a gaawee mm. waaye buur ñaan moom ku ne mën na ko waaye jëmmi nit ndax mën naa bañ jàng ba noppi mën a ñaan mën na ne mën na ne lu mën a nekk la. waaye sell gi moom mooy li mënta ñàkk. sell gi moom mënul ñàkk ndax suñu borom dafa dafa sell léppam itam dafa sell. alquran jii nga xam ni ci la ñuy saafara léppi doomu aadama ñun mm-hmm. dafa sell mm-hmm. te bala koo nitalaal da ngay sell mm-hmm. te koo koy defee lit dafa war a sell laa yamassuhu ilal mutahharun kon jàpp naa ne alquranul karim moom euh, euh, waxi sun borom la joo xam ni dafa sell sun borom moom léppam dafa sell kon nit bu sellee rek donte jàngut euh, wax dëgg yàlla mën naa ñaan mën naa ñaan sun borom ci doomu aadama ci mu mu mu sun borom may ko la mu bëgg loolu lu mën a ne la. sëñ maam Cheikh Kamal dama gis ni soxla du rëy ci kanamam li ko waral mooy kañ du fëgg dënn muy benn du bàkku du lekk lu lewul te bokkul ci coow li te pourtant punkal yi ngay jëflanteel ci réew mi macha allah yàlla na barkeel te sax te yàgg mooy ku fi nit ku baax rek am na ak yow alaaka ci soxla ñaan yàlla nga dugg ci yàlla sama borom may la ci ndam te dara xewul te doon ni man maay ñaanal diw ndax ñoom bu ñu la ñaanal football ab footballeur sax da ñaan maa ñaanal joueur diw te musuma dégg nga ne maa ñaanal diw. buur loolu dama amalul njariñ li ma amal njariñ mooy nit ki saa bu ñëwee ak ku mën a doon ak lu mu mën a yor ci réew mi ak ndombal tànk lu mu mën a am ma faj aajoom keneen ku ñëwaat it ma faj aajoom may ñaanal ma Samba ak may ñaanal ma demb moom ku koy wax ku ne ku bëgg ku ñëw ci yow rek la ku bëgg ku ñëw ci moom rek. dem ci terrasse hôtel la ñu di la filmer ak yi di la tagg. yooyu yëpp ak jot la te buur man xam nga ni yàlla def na ak jot dama ko amut ndax li ma war a def daa bari te ñi ma yaakaar bari waxuma dara waaye damay damay damay boroomu njaboot. Mm-hmm. ñi ma war a dimbali bari. Mm-hmm. man am na loo xam ne aw ma jotam te mënuma ko itam te it tëluma ko. Mm-hmm. waaye du ci àgginu ku may ñaanal ku ne dama naan diw laay ñaanal ba addinay tukki ñi may ñaanal ñooy xamante sax ñoom ci seen biir ñooy xamante. masalan nit yebal fi nit kooku dem ba xam ne xamoon naa ko <laughs> wala noonu waaye du lu may wax moom ndax loolu du sama mbir. maa ñaanal ma Samba ak maa ñaanal ma Demba moom. loolu da amut sens li am solo mooy fexeel koo ñaanal rek aajoom faju man daal foofu laa ne waaye di ñaanal kii ak di ñaanal kaa loolu ñoruma ndax téeméeri nit téeméer ñi gën a siiw ci bu ñu ma doon xëyal ko gontal itam te seen aajo fajut loolu amul importance. Mm-hmm. li am solo buur te am solo te nit ku ne war koo bàyyi xel mooy jaam bu ne njàqaree tax mu ñëw ci yow. Mm-hmm. jaaxlee tax mu ñëw ci yow. Mm-hmm. am ittee tax mu ñëw ci yow. yaakaar laa tax mu ñëw ci yow. doy loo laa mu ñëw ci yow juróom yi yëpp boo ko boolee rek war nga ko mën dimbali te yàlla tax. te it suñu borom mi la dénk xam-xam boobu yi ngir nga di ci dimbali kooku dala koo jox ngir nga taxawu ko ca. Mm-hmm. boo ko ca deful rek defoo lu la war. Mm-hmm. te nit ki nu mu mën a mel ak jafe-jafe bu mu mën a am ak euh, nu mu mën a taqoo ci métit jàpp naa ne yow mi ko ci xam boo ñëwee war nga ko caa mën a dimbali te wax du jib. aajo bu ñaan yàlla mënut a faj am na. loolu buur amut aajo bu ñaan yàlla mënut a faj moom amut. ak nu aaj yi toll. ñaan yàlla moo gën a ñaan yàlla xëjut ci aajo. ci gàttal kon xam nga ni ah, aajo bu ñaan yàlla mun a faj amut mm. jëmmi ñaan yàlla ci boppam buur xajut ci aajo mm. ñaan yàlla xajut ci aajo ndax moom adduhan usilaahul mu'min munuñ ñi mooy ngànnaayub jullit ba noppi muy xaj ci jenn aajo te nit ki yaakaar naa ci àddina li feeg muccoo rek awagoo yoon wa mm. awagoo yoonu jag awagoo yoonu jagale sëriñ bi damay am chaque jour benn laaj ma lay bëgg laaj dama naan saa yi ma toog ak yow sa opportunité la ci man itte ji xëlwatu mën a faj seet mën na ko détecté ci bu gaaw wala xëlwatu pour faj aajo rek la ak yan xeeti aajo wala dayoo aajo bi nan la war a tol buur euh, seet mën nga koo defal nit ki xam ni kii mbiram xalwatu la war a doon wala leneen ak leneen la war a doon mm-hmm. waaye bu dee biir xalwatu ndax mënees na cee xame mbiri nit ki ba tey loolu mën na ne mën na ne waaye du looy xaar masalan ci biir xalwatu bi boo koy def du looy xaar ay xibaar ci biiru nit ki waaye mën na laa dem waaye eh, xaar bi nga defoon njëlbeenu ngay dugg xalwatu boobu yi loolu istixbaar la mooy sàkku xibaar ngir mën a am ay xibaar ci nit ki ngir mën a xam fooy teg sa tànk ngir mën koo dimbali ci jafe-jafe yim la jàmbat ak jafe-jafe mën a doon xalwatu xaju ci man jàpp naa ni damay wax ni nit njàqare li muy dund toog wéetoo koog moom mu di ko metti mu di ko souffrir mu di ci jaaxle damay wax ni la dox diggam ak loolu saafaraw mooy mu agsi ci man baa ñu boole koog man mm. loolu yàgg naa ko wax te it mayug suñu borom laa ci am mm. te it ñi ma ci jot a jëflanteel ñëpp xam nañ ñi mayug suñu borom laa ci am du lu may bàkku du lu may ndamu mm. dépassé naa loolu te maam ak loolu te it maa ëpp loolu ndax yàlla dimbali na ma xam-xam moom amul benn xam-xam boo xam ni ci yii nit ñi di soxla ci àddina mhm. ci jafe-jafe bu mu mën a doon gàllankoor bu mu mën a doon yitte ju mu mën a doon te gën gaa bëri du jéggi juróom ñaari fan du jéggi vingt-quatre heures du jéggi ñaari fan ñett loolu mooy suñu borom la mhm. waaye du ay caaxaan mhm. xam-xam nit da koy jàng gëstu ko boole koog di jaamu yàlla boole koog set boole kook nungoo muñ nungoo dimbali doomu aadama yi. Mm-hmm. Mm-hmm. waa kuy dimbali de bay dimbali ay ñaankat yàlla ci bu ngeen defee lii def leen li bu nit ki ñëwee ci yow musallas bi alkuntiyu bi moo koy faj mu rabaa bi loolu yéwén la sax ba ci ba ci xam-xam waaye sax dama gis ni gaañ yi ñemewuñu faj rab lan la koo wax mu ne la am naa xam-xam waaye duma ko faj ndax xale laa. waaw rab nag ñu baree bari ñemewuñ ko waaye man moom yàgg naa koo faj te duma deñ ci di ko faj. Euh, yaakaar naa ay jamono ci ginnaaw même bu dee cosaan la ay jamono ci ginnaaw daa nañ ma wax ni ma loolu wóorut ñu bari wax nañ ma ko waaye man dama dul koo xam ni damay tëb tëb di def mel mbir mbir mu ne bala ma ni mën naa ko rek faaw ma xam ni mën naa ko ba pare def ko ba gis ko loolu nag bu ci xësee am damay xam ni mën naa ko euh, rab dafa doon loo xam ni ñu baree bari li tax ñemewuñ ko ñoo yey nag mm. nit wërta wërta wërta wërta fooy ak dundam te xuranaa u moom la ñuy wax rab nawxun min nawxil jinni la xeet la wu bàyyi ko ci xeetu jinne mm. woo xam ne mënoo koo làmb daj ko mënoo koo xool gis ko mm. waaye nag man naa yàqal nit ki ci dundam yàqin woo xam ni ba addinay tukki buur kooku mën na doon koo xam day jékki-jékki rek paralysé mm. mën na doon koo xam ne day jékki-jékki alalam di yàqu mën na doon koo xam ne bu dee jigéen la da koy tee am borom kër mën na doon koo xam ne bu dee góor la da koy tee sëyi yooyu yëpp tey mooy yi ci gën a tuuti yi ma la limal rab dafa doon lim mën a yàqal nit ki dafa bari moo tax euh, nit ku ne war ngay xool say mbir ba xam amoo àndaale bu la yàqal wala déet mm-hmm. ndax léeg-léeg nit jàpp ni ay def-def la addina euh, li feek ñi ngi fi nit ñi duñ jug ci di def def ay nit ñi nit ñi duñ jug ci di defante mm-hmm. ndax adduna kër ku xeex la defante goo gii nag la la ciy musal di la ci dimbali mooy nga nga jekk pare ci sa bopp comme ni ko yonent ni sallallahu alayhi wasallam waxoon ni xassinu anfusakum ñoŋal leen seeni jëmm mm-hmm. loolu te xam ni ñu bëree bari lottu nañ ci jafe-jafe yooyu di ko dund am ku leen ko saafaral te yàlla def na ni mm, saafara bi gën a bi gën a bi te gën ci doomu aadama bi gën koo mën a dimbali mooy alquran mooy nit ki wut muslaay ci boppam euh, nga dimbalee ko ko ndax doomu aadama bi boo ko dimbalee rek defal nga ko lépp ci àddina kon di fëgg dënam naan gëmuma ñaan yàlla rek laa yaakaar euh, kooku da xam ni rek xamul dara ndax man léeg-léeg ay ree damay jàpp ndax léeg-léeg ma gis ci euh, ñuy wax ci tele yi ni gëmuñ yooyu wala dara mm-hmm. te am na ci ñooñ dañuy ñëw fii man dama cee xam koo xam ne mas na toog di ko wax te euh, ñëw na fi léegi nag yu mel noonu ay ree daf may jàpp nit ñi ci boppam dañuy naxante seen biir sëriñ sëppayam sëriñu internet yi gëmuñu leen ay dóorkat lañu man leen sama waa ji bokk ci de buur àddina bu ñëpp yemoon am ñu gedd seenub cër gor moom gor rek la mën a doon waaye baadoolaat baadoola rek la mën a doon mm. ndax dégg nga wax bi Euh, man damay koo xam ni lu baree bari dama ko ruus jomb ko doomu aadama yi taxut de yàlla tax mm. man lu may rus rek dama koy rus ngir yàlla lu may jombit dama koy jomb ngir yàlla mm. man ëppala ëppalante naa sama jëmm di def dara ngir nit mm. ëppalante naa sama jëmm loolu buur gis nga ni may sonne ci yittee doomu aadama ba nit ki léeg-léeg mu jàpp ni sax euh, lii moom xanaa day day dara ma ci nekkal fekk du loolu de loolu dimbali sama bopp la ndax alquran dafa wax ni wa amma maa yanfa'u naas fa yamkusu fil ardi ki ëppal nit ñi njariñ mooy ki yàlla di gën a bàyyi ci kaw suuf ndax dégg nga wax bi diggante asamaan ak suuf nag lépp lu fi ne njariñ la loo xam ni suñ borom daf ko indi ngir doomu aadama yi mm-hmm. ndax dégg nga wax bi maa na samaa wal arda wa maa baynahuma baatila suñ borom nee na diggante suuf ak asamaan bindu ci dara loo xam ne ak neen la lépp njariñ la ngir nit ñi mm-hmm. moo tax nit ki nit ki nit ki rekk ko mën a dimbali léeg-léeg nga gis ko toog naan man de ñaan ñaan naa ñaan naa ba sonn gisuma dara te fekk mbir mu man di doon man xaramal baaba wala ja wala ab bunt boo koy fëgg te bàyyi bu yàggee da nga tàbbi ndax ñi ñëw ci man ñëpp bari na ci bu ma noon cinquante pour cent yi yu mel noonu lañ daa wax te tey dañoo toog di xam ni bu sukkandiku woon ci seen wax jooju danañ gën a sonn te man pale bale am ra wajad wajad kuy sàkku mbir farlu ca te bàyyi lu metti metti da ko am mm. te addina bii suñ borom wàccul di dimbali kenn de lépp mu ngi ko teg ci loxol doomu aadama yi léeg nga gis ku toog naan man de léegi yàlla rek léegi lu tee dimb avant ngay dem di ñaan lu bay sonn lu tee nga bàyyi woon sa bopp yàlla rek hmm, hmm? Hmm. booba yàlla ma fa newoon démb moo fi nekk ba tey te du masa soppi ko ndax lu dul jëmmam jëfama te lu dul moom amoon na ay jamono amul moo ko amal te lépp moo ko peeg ci kàttanam mag man-manam ak sañ-sañam te dafa jël lépp bàyyi ko doomu aadama bi ndax buur nit ki bi mu juddoo suñ borom da ko booleeg ñaari nit ku góor ak ku jigéen kenn ki di woy juróom wu góor keneen ki di woy juróom wu jigéen ñu toppatoo ko sang ko sang ko wutal ko tur di ko teete ci àddina defal lii bàyyil lii toppal lii bul def lii loolu lépp nit ñi ana yàlla yàlla li ëpp ci nit ki da ko bàyyi nit ñi buur nit mënut a mucc ci àddina te te loxol doomu aadama jaaru ci lan moo tax buur nit ñi àddina bii rek boo soxlaa dara wenn këyit wala dara da dem sa moroomum nit mu moo am yaakaar ni ko lii damaa bëgg nga toppatool ma ko nangam nangam ana yàlla booba lu tee nga toog bàyyee sa bopp yàlla. bu la ko mayee mu gën ci yow bu la ko xañee. waaye naxante bi te xam ni suñ borom daa jël lépp teg ko ci suñ loxo. Mm. ñun doomu aadama yi. Mm. nit ki nag mën na teg foo xam ni uh, aw tànkam foo xam ni ku xamul dara la loolu du fi jóg waaye loolu damay yàgg wax ni ku ko yàlla nattoo am nattu la te àddina lifik nit kaa ngi fi suñ borom di ko nattu ndax laqad xalaqnal insaana fi kabat mm. suñ borom moo ñu bind ñuy jànkonteeki coono ndax dégg nga wax bi borom li mu wax rek ak mooy dëgg nit moom loo mën a bëgg ci àddina da nga ciy sabablu rek suñu borom dor la ko jox. foog nga sonn ci ci ko docteur bi ngay dem tey ñu bind la analyse nga ñëwaat suba ñu bind la rajo nga ñëwaat ginnaaw suba ñu jox la rajo bu nga ñëwaat te doo ko jàmbat mi ngi noonu te doo ko jàmbat am na ci ñun duñ ci jóg te duñu wér mm. hmm? mm-hmm. da ngay gis ni kon mbir yëpp suñ borom da ko waajal ci doomu aadama yi mm. nit ki jafe-jafe bu mu am bu mu toog fi mu toog rek naan yàlla yàlla bu doon looloo naa ni xam-xam du am ndax wax naa la sàng ni la suñ borom defut dara ci neen mm. alquran lépp njariñ la mm. te lépp doomu aadama yi dong nga tax ndax dégg nga wax bi xam nga ni lépp doomu adama yee tax mm. ñun mi ngi noonu nag lépp doomu aadama yee tax moo tax ñun euh, loolu dañ koy def di ci dimbali nit ñi ndax euh, nit ñi saa boo leen dimbalee rek sa bopp nga dimbali ndax yàlla nee na ku dimbali nit ñi dig ma dimbali te ku ne xam na ni yàlla ajowul ndimbal waaye bëgg ñun ci suñu biir ñuy dimbalante. Mhm. kon loolu am na solo lool ngir ñu di ci bàyyi xel te di ko def waxtu bu ne ak jamono bu ne. Mhm. Mhm. sëriñ man xam naa ne bi ñu noddoo ba tey sa xel mi nekkatul ci émission bi <laughs> dama lay eh, libéré rek eh, sa baat bu mujj rek bàyyi la nga dem def say askar ak say rawraat eh, taxawal waxtu wi. waaw waaw waxtu wi kay jot na sëkk. di ñaan suñ borom defal leen jàmm ñi ñu doon bàyyi xel biir réew mi ak bitim réew mi suñu borom defal leen jàmm. di wax ni ñu yam foofu comme waxtu yu jett nañu ba beneen yoon incha allahu taala <laughs>